di wax rek ne kaddu yi du yag waye préfet ñu ngi lay nuyu di la dalal di la dalal ci arrondissement bu pos euh, bi nga ñëwé yagul waye bi ñu jàppee bés bi nga xamné ndey ma jigen kon mo fi nekkon def CLD waye bi nga ñëwé togo dang ci topat di wo chef de service yi taxaw fi taxaw bu am solo waye tamit nga jilat sa auto ñëwaat démb fii xool situation bi naka la demee donc loolu wax dëgg yàlla ah ñun danañ la ci jaajëfal bu baax a baax a baax li tax ñu di ko def xam nañ ne lu la war la sax waaye ñun dañ jàpp ne lii nga xam ne mooy gàmm bu daaru salaam képp koo xam ne yaa ngi ciy def xalifa bi moo woote waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp moomeel bi ñun ngay defal ndax moo tax nag ñuy jël kàddu dalal nit ñi di dalal aussi chef de service yi nga xam ne ñëw nañ fi bees maa ngi fiy gis euh, waa gendarmerie commandant bu bees bi nga xam ne wax dëgg yàlla sentir nañ ne ci wàllu sécurité mbir mi soppeeku na taxawaay bi am na solo euh, maa ngi fi gis aussi chef de service bu bees muy commandant bu sapeur pompier ñu ngi lay dalal jàmm ci département Nioro yal na leen département bi jig yal na leen arrondissement bi jig ngeen jig leen bu ngeen fii jógee yal na doon promotion fii ci Daaru Salaam niñ koy séddalee at mu ne mooy dafa am ñaari nguur yu fi nekk mu nekk le spirituel ak le temporel ñun ñu yor ko waaye daal mën nañ la garantil ne depuis 2014 bi ñu fi nekkee ba léegi amul benn jafe-jafe boo xam ne am nañ ko ak njaboot gi waaye liñ li nga xam ne mooy taxawaay bi mooy di ñu conseiller di ñu jàppale di ñu conseiller di ñu jàppale moom mooy taxawaayu xalif bi gis nañu aussi ne kii di xalif bi woote gàmmu gi lim ciy def lépp loo xam ne alal la mu am ko de ko ciy def te du ci négliger dara dafay jox njaboot gi ceeb daf leen di jox dugub waaye tamit nag yi nekk fii boo demoon tey ca kii ba da nga gis ne kaye lañuy ñuy yor di ko séddale di ko séddale di ko séddale ba nag yi jeex kon loolu dañ la ko seddeel xam naa ne bu fekkoon ne beneen gàmmu fekk na la fi du la ko wax waaye li ngay ñëw bees moo tax ma di la seedeel ne la lépp lum nekk ci njëriñu askan wi njëriñu population bi la nekk te amu ci xàjji ak seen bàyyoon na ñëpp euh, doomoo na ñëpp def na ñëpp taalibe ñu ni tamit bàyyoo nañ ko loolu daal mooy li nga xam ne ñun séq nañ ko ak xalif bi fii ci Daaru Salaam nga xam ne indi lu ñu benn jafe-jafe ñun nag en tant que collectivité locale bokk ci comité d'organisation bi ànd ak ñoom wax dëgg yàlla mën nañ wax ne service yi fi xasoon yëpp wax dëgg yàlla góor góorgóorlu nañ def nañ li ñu mën moo tax jaajëfal nañ leen comité d'organisation bi jaajëfal nañ leen taxawaay bi rafet na kontaan nañ ci képp koo xam ne ñëwul na fii ci CLD bi lam waxoon def na ci lam mën nit nag du def lu mu mënut moo tax nag ci turu monsieur le maire El Hadj Moustapha Thiam ci turu organisation bi gërëm nañ bu baax sant nañ bu baax en tant que collectivité locale li ñu mën jéem nañ def nañ jox nañ population bi ceeb éclairage public santé walu carburant ambulance yi yeb yëpp góorgóorlu nañ ci def ci liñu mën suñu waréf la waye nak dafa bax gan bu ñëwé nga wax ko ne ko li ak li ak li la motax ñu dila ko sédel rek waye lolu luñu war la te waro nañ ko itamin waro nañ ko bu baaxa a baaxa baax en tout cas euh fi ci daru salam ñu ngi leen di dalal jamm di wax rek ne ah ñaanal sëriñ nañ ko ñaanal mu yàgg fi wallaahi yàgg fi am na solo am na solo ku xam commune Darou Salam xam ne c'est une commune très religieuse yi bari nañ waaye sëñ bi daal kenn la ci ñun loolu yëg nañ ko santiir nañ ko dama koy faral di wax te duma tàyyi mukk di ko wax ne ñun Darou Salam fii am na loo xam ne tey am nañ ko te nit ñi amuñ ko te sentir nañ ko te ku nekk fii di ko santiir mooy tey da ngay gis ne commune bi amul luuma amul marché amul dara waaye kenn mënuñu kon am na lu ne ci ron loolu nag junj la rek junj doy na borom xel moo tax nag ñu ngi gërëm bu baax di sant bu baax di la wax ne la daal sëriñ bii nekk fii ci Daaru Salaam téye nañu jàpp nañu conseillé conseillé nañu lépp loo xam ne lu ñuy dugg la du ñu dugg ci lu mu yëgut waaye bu ko yëgee danañu wax la nga xam ne moom la ci xalaat te xalaat bu rafet lay doon te noonu lañ koy jëfee moo tax nag moom ak njaboot gi yëpp foo ñu gis da ngay gis ne njoboot gi la ñuy àndal di liggéey gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp du ñu monopoliser kàddu gi ndax toogaay bi dafay bëgg a yàgg moo tax daal ci turu monsieur le maire El Hadj Moustapha gërëm nañ ñëpp sant nañ ñëpp délégation bi ma àndal su fekkee ne euh, oustaz baaxum jël na kàddu gi oustaz euh, ba jël na kàddu gi dana ci ñëw waaye daal foofu la ñu yemale kàddu gi di la wax ne daal préfet en tout cas daal ñun suñu xel dal na fii buñ fi tëddee dañuy nelaw ndax am nañ kiiraay goo xam ne wax dëgg yàlla wóolu nañ ko bu baax nag ñuy ñaan mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér yàgg fi ak ñun yàgg fi ak njaboot gi jërë ngeen lahu wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي mbokk yi mbokk jullit yi ñu ngi nuyu sëñ bi alxaaji Basiru Ndaw di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool ànd ak wér yàlla na ko yàlla defal si barke alquranul karim euh, sëñ bi ñu ngi ànd su sous bu bu Paoskoto Pape Massaer Diop Pape Massaer Diop bi muy ñëw mu ngi ànd ak adjoint Lamine Kaba ba léegi ñu ngi ànd ak commandant sapeur pompier bu Nioro ñu ngi ànd ak itam commandant brigade bu ñooro Omar Koli ñu ngi ànd itam Euh, inspecteur Sow mi yore mbirum njàngale mi ci département bi ñu ngi ànd ak itam Mamadou si CPA bu Nioro ñu ngi ànd ak Awa Faye Diouf moom itam mu ngi ci délégation bi madame Ndiaye Koumba Kade moom itam mu ngi si délégation bi Ablaye Fall président Sénési moom itam mu ngi si délégation bi Moussa Diagne proviseur bu Nioro lycée bu Nioro mu ngi si délégation bi oustaz Babacar Ba nekk conseiller si préfet moom itam mu ngi si délégation bi bi ñu ñëwee nag daaru dañ fi fekk ad premier adjoint au maire ñu koy wax Ablaye Ndour mu ñi ak accueillir bu rafet ànd ak euh, euh, maire bu euh, Paoskoto muy Balla Mbaye ñu ànd ak itam Moustapha Mbow nekk ci mairie bi ànd ak itam Ahmad nekk ci mairie bi Abdou Salam Seck nekk ci mairie bi Ali Mbeng nekk directeur bi yore rajo bi Malick Seck nekk ci mairie bi Madibo Keita nekk ci délégation ba léegi Serif Thiam nekk ci délégation bi roq Roqiya Ndiaye nekk ci délégation bi Alaaji Jim baaxum nekk ci délégation bi moodu Mbeng nekk ci délégation bi ñii ñoo accueillir préfet Pape Massayer Diop Euh, mu nekk sous préfet bu Paoskoto mu ñëw fii say di Daaru fekk seli sëñ bi ci mawlidu nabi sallallahu alayhi wa sallam monsieur le préfet kàddu gaa wa sallallahu taala ala sayyidina mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa bu ñu sante yàlla suñu borom euh, julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi leen di ziar bu baax ñu ngi leen di ndokkeel di jiital ci nuyoo bi le xalif général Laaji basiiru Ndaw ñu ngi lay ziar bu baax sëriñ bi di la nuyu nuyu bu tedd di la sant di la gërëm ci sa taxaway si nous ko sëñ Babacar waxee léegi ci délégation bi nga xamni mom lañu la ñu fi pour représenter son excellence monsieur le président de la république Bassirou Diomaye jahar Faye représenter tamit premier ministre représenter membre gouvernement bi waaye tamit représenter le gouverneur de la région ak le préfet du département de Nioro sëriñ bi ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi lay ziyaara ñu ngi lay jaajëfal ah comme ni ko sëñ Babacar waxee léegi gan lañu ndax tey mooy sama troisième jour officiel ci wàllu liggéey ndax alxamis bii paase laa jël service yàlla def mu daje ak gàmmu gi ñu ñëw fi démb doon def état des lieux pour xool fan la préparatif yi toll mais bi ñu ñëwee ba yàlla dafa ñu taw féex nga recevoir ñu sëriñ bi biñ fi génnee wax dëgg yàlla dañoo ànd ak kontantement bu mag a mag a mag dañoo ànd ak mbégte mais surtout dañoo ànd ak xel mu dal ndax wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee li ñu wax ci dëkk bi di Daaru Salaam li ñu dégg tamit si sa waajur bu tedd ba dégg ko tamit si sa taxawaay ci diine lislaam sa taxawaay ci njaboot gi sa taxawaay ci Sénégal loolu wax dëgg yàlla bi ñu ko déggee ñun dañoo ànd ak mbégte ànd ak xel mu dal ni ko monsieur le maire Daaru Salaam waxee léegi loolu daf ñu gën a jox motivation gën ñoo jox taxawaay ba li nga xam ni moom la ñu kilifa gi sant muy président la république gouvernement bi sant ñu ko ñu war see mën a taxaw xaat suñu tànk tubay liggéey ci bu baax a baax a baax ba askan bi bañ see gis seen bopp. wax dëgg yàlla boo nekkee gan moom comme ni ñu koy waxee rek dangay ñëw topp ñi nga xam ne ñoo la fi jiitu. mais préfet bi nga xam ni moo nekk Nioro muy préfet Ibrahima Fall tey xëy na nekku fi mais xelam yëpp mi ngi fii ci Daaru Salaam ndax léegi rek mi ngi jokkoo ak man dama préfet damaa nekk congé am lu ma tënk waaye man sama bopp maa amoon yéene ñëw ànd ak yéen ñu dem ziyaare sëriñ bi ci bisu mawlud bi mu ne ma boo demee na ma ko nuyul na ma ko ziyaareel bu baax a baax a baax looloo tax tey sax préfet département bi gisu leen ko fii waaye comme li ñuy wax xel maa kucca ngi ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf sëriñ bi wax dëgg yàlla de bis bii nga xam ni yàlla def na nga présider ko dañ lay ñaan rek sa tur bu sell bii di Basiiru muy koo xam ni dafay indi jàmm muy ko xamni da fay indi muy ko xamni da mais surtout fay yar donc si sa tur bu sell rek ci la ngir na la serigne bi Sénégal yépp président de la république mais ñaanal gouvernement bi ba li nga Sénégal suñu borom may leen katan ko mën ko doxal ci jàmm ak salam mais tamit serigne bi bisu Maulud bi di bisu gamu di bisu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam. dañuy sakku tamit nga ñaanal ñu ñun ñëpp rek ñaanal département bi yëpp ak képp koo xam ne yaa ngi fii di liggéey mu ci wàllu sécurité ndax Omar Kolimi di commandant seen xel mën a dal bu baax ci wàllu sécurité parce que dama ko xam ndax mak mom liggey nañu fenen yalla def ñu dajewat fi tay mu jox ay resultat yu maga mak ci walu sécurité motax bima bi ñu dajewat fi nena ko alhamdulilah ndax wax deug yalla sa liggey gis nañ ko. ni ko cité non la mëna cité service yëpp ku ci nekk rek yaangi ngi bar sa war ngir li nga xamni motax ñu teg la fi nga mën ko matal ci jamm ak salam motax serigne bi dal vraiment bëgg nañ nga ñaanal ñu ñun ñëpp. ñaanal service yëpp ba li nga xam ni moom la ñu bëgg liggéey suñu baram may ñu kàttan may ñu xel mu rafet ba ñu mën koo liggéey au grand bénéfice de la population di wax ni nag Daaru Salaam ah mooy dëkku jàmm de ndax moo tax képp koo xam ni jàmm moo la tax a jóg boo ñëwee di ko fi fekk ba mu doy sëkk ndax ki ko sanc liggéey na ko suñu borom di dox di dox ba tey ñu ngi ci deux mille vingt quatre at bu ne muy gën a yokk at bu ne ñuy gën a gis ay karaama jëm ci dëkk bi jëm ci ñi nga xam ne tamit ñoo ko jiite muy sunu sëriñ bi di xalif général alaaji Bassirou donc loolu rek doy na mbégte loolu doy na xéewal moo tax ñun dañuy sant yàlla bu baax ci xéewal bi suñu borom boole ba ñu ñëw ci dëkk bu sell bii di daaru salaam te lenn amu lu dul jaamu yàlla yar njaboot gi teg leen si yoonu siraatal mustaqim loolu tax na vraiment daal suñu contentement foo ko natt rek weesu na ko moo tax daal du ñu mën a rek lu dul ne la sëriñ bi loo doon ñaan yokk bu baax rek ba Sénégal gën a am dal gën a am sérénité gën a am xéewal ba daal képp ku mën a doon ak fo meuna nek muy xalé yi ndaw yi mag ñi jigen ñi ku ci nek rek suñu borom man la may xewal ba nga meuna tok toog liggéeyal sa réew parce ñun ñep wara suñu réew ngir suñu réew meuna duñu jéxal suñu kaddu nak te duñu wax ni sëriñ bi ak suñu jëm yu xébu ak suñu kaddu yu xébu waaye dañuy ñaan ci suñu borom nga xamni mo bind jam ñep yalla na la suñu borom yagal fi lol lol lol ami wa ba li nga bëgg ligéyal sa waajur bu tedd ba li nga bëgg ligéyal l'islam li nga bëgg ligéyal sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga man ko ligéy ba doyal waaw yalla def nga tek fi nga tek sa loxo si njaboot gi ba li nga bëgg ci njabot gi tam suñu borom man ko def lol dal lañ la yéné té inshallah dañ la ko ñaanal bu baaxa baax ginnaaw buñu sakko ñaan ci yow ci sag mbax ak ci sag taxawaay ci lislaam gi ak ci sa taxawaay ci Sénégal loolu daal mooy kàddu yi nga xam ne moom laa bëggoon a yëkkati ah di leen sant di leen gërëm di leen wax ne rek lu ci mënti demee ñun disponible nañu incha allah daaru salaam suñu daaru salaam la lépp lu ngeen bëgg suba guddi bëccëg ngoon incha allah ñu ngi à disposition pour que rek ñu ànd ak yéen mën a liggéeyal sëriñ bi mën a liggéeyal Sénégal allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wa mu ne mu ngi leen kenn ku ci ne turam ak santam. mu ne mu ngi nuyu gan yi ci njiital préfet bi. mu ne ak arsuem bi mu dendal. ak ñi ma ñëpp. kenn ku ne mu ngi lay nuyu. di la sant di la gërëm. mu leen di sant bu baax a baax. mu ne xew li dafa mel ni. xew ak jullit yépp la nag waaye fi mu nekk nii fa mel ni ñoom lañ ko mooma la ñu moom ko mu ne mu ngee dégg bañ mu ne teew si ngeen teew si fii da leen ndokkeel si mu ne ñoomi te leen seen ndokkeel ndax jullit ñëpp ko bokk mu ne kon dikki gi ngeen dikki si ñoom da leen ndokkeel mu ne ñoom it ñu leen di ndokkeel ñoom it ñaan yàlla yi tamit ci barke borom xew lii muy lii lépp loo xam ne suñ bëgg-bëgg la ci suñu réew mi yàlla defal ñu ko ñu ko bëggee lépp muy ragal ci suñu réew mi yàlla dàqal ñu loolu may ñu nawet bu baax nawet bu egg te baax liñ ci bay yépp ñor sakkan lool te bëri teñ muuroo ko mu ne mulen ñu ngi ñaan yàlla mu ne mu ngi leen di gërëm mu ngi leen di sant mu ne nit nag bala nga koy gërëm da nga ko xam mu toog mu nekk yow ab diir bu yàgg waaye mu ne moom xamagut mu ne comme xamagut du du mën a wax ne sax gërëm na ndax xamagut léegi gisagut it lu mooy gërëm mu ne waaye teew giñ teew fii mu ne loolu moom mënu koo ñàkk gërëm mu ne ku fi mën a ñëw rek dana la gërëm ndem ndem teew nga fi ci bés bi dana la gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jaa ngeen jëf. Euh, cérémonie bi euh, jeex na xalif bi mooy ñaan di Mawlaaya El Hadji Bassirou euh, Ndaw di xalif bu Daaru Salaam xam nga ba a na cérémonie bi na ñëpp wax amin amin